benn tesalonik juróom waaye mbokk yi ci li jëm ci jamono yi ak waxtu yi loolu di am matul ñu leen ci bind dara ndaxte xam ngeen bu wér ne ni sàcc di ñëwe guddi noonu la bésu borom bi di ñëwe fekk nit ñi naan lépp a ngi ci jàmm ba ni lewu booba musiba bett leen ni aw mat di bette jigéen ju ëmb te kenn du ci mucc waaye yéen mbokk yi nekkuleen cig lëndëm ba tax bés boobu bett leen ni sàcc ndaxte yéen ñépp ci leer ak bëccëg ngeen bokk bokkunu ci guddi ak lëndëm kon nag bu nu nelaw ni ñeneen ñi waaye nanu xool te maandu ndaxte ñiy nelaw guddi lañuy nelaw te ñiy màndi guddi lañuy màndi waaye nun nii waa bëccëg nanu màndu te ràngoo ngir xare bi ngëm ak mbëggeel muy kiiraayu dënn ak kóoluteeg mucc muy mbaxanaam xare ndaxte yàlla jaglewuñu meram waaye mucc lañu jagleel ndax darajey sunu borom Yeesu Kirist deyal nanu ngir nu mën a dund ak moom bu nu nelawee ak bu nu nelawagul kon nag na ngeen dëgëralante te yokkante seen ngëm ni ngeen koy defe ginnaaw loolu mbokk yi ci lu jëm ci njiit yi borom bi teg ci seen kanam te ñuy liggéey ci seen biir di leen artu maa ngi leen di ñaan ngeen déglu leen raxse dolli ngeen naw leen seen kem kàttan te bëgg leen ndax seen liggéey